merci beaucoup man la livreur bi la wara indil cadeau ah. cadeau bi nga xamni ki nga xamni mom nga gëna bëgg ci sa aduna mo la ko offrir ci sa anniversaire bi ah, mhm. léegi nu may def bu jot ci nak. non lolu mom du don problème ndax man ma la ko wara indil ok mais dama soxla won rek euh, nga wax ma tour bi pour ma xol ci papier pour man man la ko yónnee Tour ka? ah sa turu copain bi nga xamni mom nga gëna bëgg ci sa aduna. ba tax mu jaral ko mu euh, envoyé la cadeau bu am solo bii. salaamaaleykum sama gaay yi ba yéen a ngi ci jàmm man la seen xarit seen doomu nday maître Maymouna tey nag moom affaire avocat yi dañ koo tege nee tey dama ñëw tey pour wan leen ki ngeen xamante ni mooy seen acteur gi ngeen gën a bëgg.

sama projet tay du woon lenn lu dul comme sama euh, fiancé bi tey la anniversaire am ma bëggoon ñew nak defal ko benn surprise bo xamanteni mo ci bopam daf koy jëlé kaw ah loolu mom ñing koy rafet lu bare bare bare mais euh nga ni da nga bëgg marier mais ba am nga confiance ci xalé bi nga bëgg marier waaw xalé bi nak amna ci moom confiance trop sax motax na ma bëgg ko jël soxna mais ben instant dal amna ci lu may xawa douté touti touti rek ah bon douté mais li ngay douté nono ba yow tamit euh, nekko di juuj njaay jeewit <laughs> non non man mom paré na man mom juuj jaaju ba dara wax deug neex yalla wol na sa bop xana ben instant dal ci côté am lay xawati dal ndax xam nga jamono jo jamono jo xamanteni dafa dafa dafa teure di ken xamul d'accord yalla baxna mais puisque xalé bi ngay wax amul ben problème légui dama bëgg nga jox ma numéro comme ça ñu woo ko ñu xam exactement lan mooy kii mom tamit. waaw légui lool do ba paré dama bëggoon amna ben cadeau karo bu ma ko offrir bu ma bëgg offrir euh, léegi balaa boobu xam naa suñu paree lool après ma jox la numéro. est-ce que mën nañoo xam exactement cadeau bi lan la. cadeau bi waaw 11 pro la. non astafurlah <laughs> quatorze du mois quatorze moom moom ëpp loolu noonu quoi moo tax quatorze bi laa koy jox xam naa. léegi dama bëggoon nga jox ñu numéro bi comme ça ñu mën a waxtaan ak moom. Allô Oui, allô Ça va, Mina Ça va bien, Kokanda. Joyeux anniversaire. Mm, merci beaucoup. Man la livreur bi la wara indil cadeau. Hmm. Cadeau bi nga xamni ki nga xamni mom nga gëna bëgg ci sa aduna mo la ko offrir ci sa anniversaire bi. Ah, OK. Mhm. Mm Légui numay def jot ci nak? Non, lolu mom du doon problème ndax man ma la ko wara indi. OK. mais dama soxla woon rek euh, nga wax ma tur bi pour ma xool ci papier pour mën mën la ko yónnee. turu kan. ah sa turu copain bi nga xam ne moom nga gën a bëgg ci sa àdduna. ba tax mu jaral ko euh, envoyé la cadeau bu am solo bii. Euh, Moussa Moussa. non non non du Moussa de. Ah, wax nga dëgg wax nga dëgg <laughs> dama jaawale ma fàtte de Moodu la Moodu. Hmm, Moodu. Não, do modo, do modo. ah wax nga dëgg xam nga ak anniversaire beeg yooyu noonu pression bi daal xam nga moom a jàpp waay <laughs> ah Samba waay Samba la de. Samba. non hmm? non non du Samba du Samba du Samba. Ba soxna si nag loolu cadeau lan la sax nag. <laughs> cadeau bi de cadeau bu am solo la ndax 14 pro la. 14 pro max. waaw waaw. allahu akbar. <laughs> alaaji la. ah alaaji. xaaral xaaral ma jàppale la tuuti. Cheikh la. Cheikh. waaw. Cheikh ah ok. ayu waay kon yow nii nga nekkee ci àdduna bi yow. yow ni laa lay bàyyi Amina. Eh, non yow yaay baadoo la ak li eh, def ci yow lépp. fayal la say jàng ah. lu ne ma defal lako tay amo lamay faylu li fay kon yow ndekete yow mbaral gu metti nga nekkee ci dëkk bi yow ay ba do la waaye indiwu ma dara laa la wax yow sama diggante ak yow yam na fi yow vrai do la la dara duma la ko jox yow tout sax doto ko am man ak yow c'est fini jeexna ah cher je suis désolée de du courage man yeen jigen ni xoma lan ngeen bëgg yeen jank ji mbaran suba mbaran ngoon boole juroomi goor pour lan yem leen ci kenn ngeen dawal seen wërsëg yàlla boole leen mbaran gi pour lan la ah ah réglé leen waay yem leen ci kenn fidèle leen lu am solo la yeen sama xarit sama mbokk yi maa ngi leen di ñaan ngeen partager te aimer te képp ku bëgg a xam nag sa partenaire fidèle na ci yow wala déet ñëwal ci man ma leeralal la ko bu boobaa dinaa leen wax wan ndax fidèle na wala fidèle